maaleykum wa rahmatullah gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm Cheikh Ahmadou Bamba ñoo ngi leen di nuyu bu baax nuyoo bi nag li tax ñu di ko def mooy xew-xew bi nga xam moo xew ci àdduna bi fi ne te nekk lu doy waar bi nga xamee ni nag ah maa ngi ciy wax maa ngi ko teg ci gannaaw bu sunu sëriñ sunu kilifa waxee ba noppi sëñ bi di sëriñ Muntaxa li mu def ñëpp dégg nañ gis nañ ko li mu wax ñépp gis nañ ko dégg ko wan nag boo gisee ma sañcee jël sa ay kaddu mooy barab bi ma nekk bis bu nekk ay téeméeri téeméeri nit dañ fi ñëw di jóge fu nekk di dellu fu nekk moo tax ma di ci jël kàddu ndax mbooloo yu fi ñëw a tax léegi nag dama bëgg mboolem fu waaye daan jóge di fi ñëw di ñaanlu si nga ne tekk tuuti feeg ñaari fan ñett danañ ci wax lu gën a leer bu ko defee bés bu yàlla teggee nu ma nu boobaa danañ waxaat léegi nag euh, noo ngi ñaan sunu boroom teggil nu li nga xam ne moo jaaxal ñëpp fi ne fii ci kër gi tam nag wax naa ku fi ñëw tey laa ko tàmbali ku fi ñëw rek di te nga xam ne siyaar bi nga daan def ak ñaanlu si nga daan def moo la yëkkati ku fi ñëw tey ndax tey moo moo jiitu suba gi moo jiitu waxtaan wi ma wax ne ku fi ñëw nañ ko yewi ba beneen yoon ci biir kër gi itam mboolem fu fi bunt def naa def nañ fa be beñ ndox ak ak saabu yi euh, ak i satala ngir ku ñëw ndax kat loo wax wax wax ne nit ñi bu ñëwit dana am ñooñ faaw ñuy jóge ci kër gi di génn ak benn benn yoo xam ne ñuy ñëw loolu mënut ñàkk ñooñu lañu fi tegal beñuwaar yooyu waaye euh, ñi ñëw moom wax nañ leen ñu noppalu ba mbir mi suñ borom jeexal ko euh, li may wax nag ragal ragaluma ba tax ma di ko wax nit ñi laa ragalal ndax ñooy ñëw ñoo fii daje ñooy dellu loolu rek la boo defee suñ biir li wax leer na lool euh, wax na ni mboolem ñi nga xam ne ñooy docteur yi ak ak ak ak ak gouvernement yi euh, luñ luñ wax ci loo xam ne li day indi ak wér ak ak indi bañ a bañ ci am nañ leen ci topp loolu leer na kon daal foofu rek laa yemale wax ji